tubaab Jalaaw doon bërëb boo xamante ni siw na lool ci wàllum tourisme nag ñu taamu ko bu baax a baax lool moo waral tey ñu daal fiy teew ngir xool ndax fi tur bi tollu noonu la activité yi mel ñu seq si ay waxtaan ci ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di daan seen doole. waaye nag euh, ni tur bi toll. ak par rapport ak ni muy doxee wuute na loolu ndax euh, li tax mu gën a wuute premièrement infrastructure bokk na ci li fi manqué li tax facettes yi tubaab tourisme di développé bokk na li fi manqué gars yi daal ñoo fi nekk di débrouiller ci artisanal comme suñu classe gi ak ay benn benn ñu fi nekk ci géej gi wàcc di jaay waaye nag tubaab bi moom secteur bu ñu bëgg la bëgg nañ ko trop ndax jaam am na calme amul pollution Euh, am na tranquillité boo xamante ñoom dañ koy wër quoi am na fi. Ah, l'accueil est sympa la nourriture est très sympa aussi très chouette j'ai bien mangé euh, voilà une brochette de poisson euh, avec des petites crevettes c'est bien l'accueil est sympa c'est chouette donc ça c'est mon avis sur le restaurant ici très bien. tout ce qui est poisson ndax ñëwee ba fii du pour ay lekk bon dina am tuuti yàpp parce que am na ñoo xam ne duñu lekk kiin duñu lekk euh, jën ak yooyu mais de préférence ay crevettes ay gambas ay calamar ak ceebu jën xam nga fi ceebu jën la tudd donc forcément il faut que ñu présenter leen ceebu jën ak suñu plat locaux yi euh, yi nga xamante ni ñoom nga leen di jéem a euh, présenter yu ci mel ne ay calamar nga wax ay yoxos yooyu ndax amul jafe-jafe ci yéen pour ngeen am ko. non fii. à ce niveau-là pas tellement de soucis parce que euh, nappkat yi dañuy dem am na quai de pêche bu nekk ñangal donc am jën méttiwul trop par rapport ak yenn zone Sénégal yi fii moom franchement et puis c'est un parce que clients yi ils sont sûrs que jën bu frais la ñuy lekk. bu ñu sukkandikoo nag ci ñoom ñii ñuy xamle ni secteur bi taxu ko dox lool ndaxte li ci njëkk rek moo di problème infrastructure yi nga xamante ni am nan ko. waaye nag ñu gis ni ba léegi ñu ngi dundu ak ay jafe-jafe. tali bi moom par exemple fële la yem deuxièmement infrastructure li ci gën a bëgg dañ fi ne nii tey jii boo waxoon ak client nasaraan tey waa ba pare ba ngeen déggoo lim lay njëkk a wax ndax am ngeen banque te am ngeen gisee loolu tam bokk na ci liy joxal tourisme dégg nga ak hôtel yoo xamante nii day leer ne li ay place loo xamante nii Euh, day bokk ci li yokk bërëb bi bien vrai que nag am na ñu fi nekk di góor quand même di jéem a investir def ay maison d'hôte ay quelques hôtels yu kii mais daal yow boo boo xoolalee sa bopp da nga xam ne fii carrément manqué na lu bëree bëree bëree bëri waaw. tey ñu fekk la ngay yëngu ci wàllum euh, ñaw euh, nga taamu ay tissus yu ci mel ni wax lan moo waral. waaw wax dafa bokk ci li nga xamante ni mën nañ ne. bokk na ci donte liggéeyatuñ ko jamono ñu toll nii ci Sénégal waaye comme ñun ba bokk na ci li nga xam ne jàpp nañ ne ci Afrique lañ ko mën a wax ne lii Afrique la jógee te ñun suñu liggéey yëpp image Afrique la ñuy jaay image Afrique la ñuy jaay image Sénégal itam la ñuy jaay lu koy gën a rafetal. am na loo xam ne il faut xëy na nguur gi jàpp ci parce que accès bi yombul te bu accès bi yombul tourisme mënoo ko du facile en fait pour nit ñi ñëw fii signalisa sion bi mooy signalétique bi dafa des donc am na ay am na am na ay xeex yu nguur gi war def wala mairie bi xaw ma kan kan a def wala ministère su fekkee waa SAPCO bugg nañu développer sen côte bi ndax fi mooy plage bu gën a jege Dakar avant sali bii la mais malheureusement yoon yi baaxul accès bi baaxul day yàq oto. alors en 24 heures c'est pas des masses surtout que j'en ai dormi pour me reposer du voyage. Alors, euh, j'ai pas vraiment beaucoup de recul pour euh, répondre, mais j'ai quand même un peu vu des choses. Euh, quelque chose qu'il faudrait arranger, c'est un peu la propreté. La propreté dans la, la... le peu que j'ai vu ici, c'est la ville, c'est la propreté. Côté sécurité, moi, ça va parce que une euh, brigade de gendarmerie et puis ils font des contrôles réguliers. Donc à ce niveau-là, pour le moment touchons du bois ça va. mel ni amoo leen ay lampes. amul lumière amul éclairage bu bëri bon xam nga loolu c'est un peu politique dafa ay secteurs yoo xam ne boo ci waxee rek da ngay toucher politique. waaye ñun dañuy jël ci suñu imagination boo xam ne ci Afrique la bokk def suñu création bopp gis nga ko ci ay xottu saaku pomme de terre ay jiin ñu jël ko récupérer ko defaraat ko jaayaat leen ko mu di ay saak ak vax des fois dañu naan ne vax fu muy jóge ñun dañuy lay sax naan ay Côte d'Ivoire lay jógee. ay Burkina lay jóge loolu c'est honte ci Sénégal parce que ñun amoon nañ usine bu wax Sotiba Simpafric de Dakar man may jàng may jamono may jàng boobu Sotibaam nga am loolu amatut lu ñu jafe la waaw waaye nag alhamdulilah daal lépp lu ñu mën ñu sant yàlla suñu borom waaw dañuy sant yàlla bu baax donte ñu ngi ciy nekk di góor góor di di yëngu ñun nag ñu ngi ciy artisanal bi lépp loo xamante ni daal day bokk ci facette luy wane image su Sénégal mu rafet. c'est-à-dire tout ce qui est au tourisme à un développement touristique mooy infrastructure accès loolu bu amul mënuñu wax ne tourisme am na fi léegi am na tourisme boo xam ne ñun ñoo koy développé suñu bopp mooy par nos compétences ak notre savoir fair savoir faire mooy mën a présenter client yi comme ñu lekk nga gis assiette bi nu mel xam nga loolu loolu beneen niveau la mais par contre pour ñi mën a ñëw facilement il faut que ñu faciliter leen affaire bi accessibilité bi te loolu nag xaw ma xaw ma à qui incombe la faute mais am na ci koo xam ne ou mënul li muy def ou bien sawaru ci trop am na ñàkk ndox mais ñun am nañu chance dañu am teen ak euh, pompe donc moo tax ma ne la à ku nekk day xeexal boppam. domaine yu yaatu du ñaw bi kese ngay participer ñoom psychologiquement mentalement ci côté bu ne lañuy lañuy lañuy waxtaan ak ñoom ndax tubaab tubaab dina ñëw ñaw du ko tax a jóg sax mais day ñëw bëgg a xam lu bëri ci ñun li ñuy dund particulièrement ñu wax ci bayfalisme dañuy jëmal laaj Baye Fall dañuy xool feneen naan lii Baye Fall lii Baye Fall ñun dañ ci waxtaan ak ñoom di leen ci yee di leen xamal lan moo di Sénégal al moo lan mooy dëgg-dëgg Sénégal waaw par rapport ak ñoom ni ñuy gisee ak ni ñuy dégg rumeur yi ndax da ngay gis tubaab bu ne man dañ da naan en général booy dem Afrique li nga fay fekk waaye boo ñuy dama je suis tellement surpris xalaatuma woon ne bu ñëwee laa fi fekk ma ne ko nag lépp luñ la fi wax ci teraanga lu ko raw mu ngi fi waaw ñun daal ci côté boobu lañ nekk. waaw waaye nag soxla nañ nag ku ñu jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ku ñu jàppale bu baax ci domaine yëpp nag waaw ci sécurité ci lumière ci infrastructure comme banque ak bagage yu bari yoo xamante ni daf ñuy gën a yombalal fi ne nii ñun bu ñu waxlaa bagage sax dañuy dem paas bi ba ba tëngëj waa Sobowa par exemple contacté naa leen pour ñu jëm ñu aménager comme ay parasol ay ay ay transat mais tey lekk suba kii moo koy toppatoo kii moo koy xam nga loolu bu ñu buggee sunu tourisme Sénégal développé wu foog na ñëpp ci jàpp pàññe nañu di dem di jënd boo xoolee transat yi niroowul donc am na yoo xam ne dafa des quoi. ci li ñu mën a tënk ci seen kàddu moo di dëkk bi di tubaab jalaaw wuyuwul benn yoon li nga xamante ni moo di turam ndaxte yoon yi xàlluñu ko bu baax amuñu ay éclairage public waaye itamit tourisme bi dese na fa dox bu baax a baax.